asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokki internet yi nga xam ne nooy topp Wadduha TV seen mbokk Alxaji Modou Cissé moo ni nuyu di leen siyaara di len ñaanal te sàkku <clears throat> di len ndokkeel lu bare bari ci at mu bees muy atu hijriya bi nu nekk muy 1441 tabarakala comme ne ni aadoo rek di koy partage ak yéen tey nu ngi fas yéene indi nafila boo xam ne salaat salaatul hamdiya muy tekki ne saa yoo ko defee rek soo paree alhamdulilahi rabbil alamin ngay am sa nga doon ñaan <clears throat> muy nafila boo xam ne bokk na si sekare qul huwallahu ahad xam naa du ñàkk di def ndànk-ndànk ci lenn ci secret suratul ikhlas rawatina sad bobu nga xamne samadu nga xamne ma sha allah ismullahil ahsam la nafila bi fukki rak la bo sete xul walaahu ahad dang fa fek juromi turu yàlla yi muy huwa allah ahad allah samad su ko defee juróomi turu yàlla yooyu yépp soo ko xisaabee daf la jox deux cent quatre-vingt-onze boo ko multiplier par deux da lay jox cinq cent quatre boo ko xisaabee day tolloog alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin soo ko multiplier par sept daf lay jox quatre cent soixante-quatorze fa tabarakalaa naafila bi kon da de njëkk a def ñaari rakka rakk bu nekk gannaaw fatiha nga def xul wallahu ahad fukk ak benn muy onze nga am ñaari rakk soo selmalee nga def defaat yeneen ñaari rakk rakk bu si nekk gannaaw fatiha nga def xul wallahu ahad soixante-six muy juróom benn fukk ak juróom benn nga dem si sa ñetteelu sëlmal rakk bu nekk gannaaw fatixa nga def xul wallahu ahad fukk ak ñett mooy tolloog ahad sa ñeenteel lu sëlmal rakk bu si nekk gannaaw fatixa nga def xul wallahu ahad 66 mooy ñaareelu allah bi si suratu ixlaas nga def sa ñett sa juróomeelu sëlmal rakk bu nekk gannaaw fatixa nga def xul wallahu ahad cent trente cinq lu tax cent trente cinq mooy alif ak laam bi ndax samadu rek cent quatre la mais boo si boolee alif ak laam bi day doon cent trente cinq kon muk mel ni ki naafi la nga ci sóoratul ixlaas limu cinq cent quatre vingt deux nu ne cinq cent quatre vingt deux la lay tollool nu ne cinq cent alamin kon day mel soxla boo si dogg rek si kattanu yalla da nga am résultat wu alhamdulilahi rabil alamin soo paree nag alhamdulilahi rabil alamin da koy sikkar cinq cent quatre vingt ak juróom-ñett fukk ak ñaar moom ngay def si alhamdulilahi alamin soo nga def istighfar quatre mille soixante-quatorze ñaari alamin ñaari fa la li nafil la bo xamna salatu salaatul ya lan ko tuddé te moy lepp lo si dogu da nga am resultat wu alhamdulilahi rabbil alamin ni ko waxee rek bunti ñaan yépp la sa gën moy julli moy nawafil fa la nax audience lay doon sa digënta ak borom bi lii di xaddiyal nan ko àddina bépp si kattanu yàlla bandek dogalu borom bi inshallah yenenul jamano dinañ ñëw ak yeen si yeneen nawafil nawafil Wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatu alhamdulillah